waaw oh, salaamaaleykum wa rahmatullah wa maa ngi leen di nuyu di leen ziar ginnaaw bi ñu yëkkatee suñu kàddu jëmale ko ci nuyoo boo xamante ni Serigne Mountakha Bachir di xalif général de murit moom lañ koy njëkk a jagleel di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te mu ànd ak wér di nuyoo njabootu sëriñ Touba yépp yëpp dañu ñëwoon fii tey. ci délégation boo xamante ni président de la république moo ñu yónni délégation bi nag euh, ràññee nañ ci ministre yu bari te loolu dafay wane solo si nga xamante ni président jox na ko li xew mu doon loo xamante ni lu tiis la ndaxte dara gënul metti ngay liggéey di daan sa doole di ñaq nga xëy nga xëy suba lu tiis bu mel nii dal ci sa kaw loolu moom kenn ñaanu ko yàlla ndaxte buñ ko doon xayma tuuti ci tubaab dañuy wax ni c'est le travail de toute une vie koo xamante ni da ngay xëy fajar nekk ci tool yi ba guddi loo am def ko ci ngir ut loo yóbbu ci sa njaboot boo demee bu lu mel nii dab la loolu lu tiis lu naqari lu metti ci nit la waaye sànq sëriñ Muntaxa leeral na ko ci euh, kaddu sëriñ Bas euh, liñ naan nit moom saa yu dogal bi dikkee ci moom li war mooy mu nangu ko te dañu naan jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla nag saa yu dikkee ak dogalam yi dafa bokk ci ponk gëm yàlla yi nga nangu dogal waaye loolu bu amee dafa am koo xamante ni moom la yàlla teg ci bopp réew mi mu njaboote ñëpp ginnaaw bi mu njabootee ñëpp lépp lu xew ci réew mi ak fu mu mënti xewee loxoom war naa dem tànkam war naa dem bëtam war naa dem yitteem war naa dem yitte jooju nag lii seere si mooy dafa jël délégation boo xamante ni juróom-ñaari ministre la ma lim ci ñi ñi ko composé euh, Samba Ndiobène Ka nga xamante ni mooy ministre développement communautaire ak équité sociale euh, madame Aminata Assom jaata nga xam ni moo yor wàllu commerce mooy seen ministre euh, monsieur Dame Diop nga xam ni lépp luy emploi ak formation moo ko yor ak Pape Amadou Ndiaye mi nga xamante ni miin ngeen ko ci dëkk bi ginnaaw loolu tamit fekk si nañ fii Serigne di wóllëre di ministre conseiller Serigne Cheikh Abdou Lahad nga xamante ni moom euh, ci dëkk bi la bokk bokk ci njabootu Serigne Touba waaye tamit bokk ci ñi nga xamante ni dañuy xel président de la République euh, député Abdou Khat euh, honorable député Serigne Abdou Lahad Seck Sadaga moom tamit ràññee nañ ko ci dëkk bi Serigne Modou tamit maa ngi koy gis mu ngi ne toog moom it ku ñu ràññee ci dëkk bi la gouverneur de la région moom bi mbir mi amee ba tey mi ngi ci seen wet bi mu amee ci saasi bi ma jokkook moom dama ni ko bu mu taaxirlu na dal di ñëw saytu xool euh, li xew waxtaan ceeg yéen taxawu leen euh, defal leen ba noppi euh, ànd ak yéen tiis wi ànd naag préfet ak sous préfet wu préfet wu Mbacké ak sous préfet wu Ndam ki nga xamante ni tamit mooy général Mor Seck di sapeur pompier jiite sapeur pompier yëpp ci Sénégal euh, aju ci euh, ministère bi nga xamante ni moom la jiite président dénk ma ko moom it mi ngi fi ki yor protection civile nga xamante ni day toppatoo di lijjanti lépp luy jëye ànd na ci délégation bi bi mbir mi amee ci guddi lañ ko yëg sapeur pompier bi nekk Touba jumtukaay yi nga xamante ni moom la yore doyul woon ñu woote Bambey ñëw Gossas ñëw nga xamante ni taxawuñu benn yoon ngir seen yitte yëpp ñu def ko ci euh, taxawu lakk gi ba yàlla def ci jàmm président de la république nag bi mbir mi amee dafa ni na ngeen dem ngeen masawul ma sëriñ bi waaye ginnaaw bi ngeen ma masawulee sëriñ bi nga xamante ni mbir mi ci njabootam gi ñu bokk la dal maa ngi leen maa ngi lay sant nga massawul ma commerçant yi nekk ci marché bi yëpp masawul ma marchand ambulant yi ak képp kuy liggéey ci marché bi te yàqule mi ngi lay masawu fi mu xeetu masawu toll su fekkonte ni mate na ko ku nekk ci yéen dinañ jël suñu tànk dox ba fekk sa cantine fa nga nekk wala sa kër masawu la euh, wax la li nga xamante ni mooy yittey état ngir defaraat bërëb bi loolu nag président jël na ci dogal li mu wax mooy service su état yi nga xamante ni seen euh, liggéey yëpp jëm na ci li lijjanti wàllu kaaraange wàllu defar marché ak wàllu liggéey ci commerce ñoom ñëpp jot nañ ndigal ndigal li mooy te loolu gouverneur tàmbali na koo doxal ndigal li mooy dinañ ñëw xool li nga xamante ni war nañ ko seetaat war ko defaraat ba nga xamante ni bu marché bi décision bi mu jël ngir defaraat marché bi bu ci noppee dinañ gis beneen marché ndax marché moom lenn rek moo ko tax a jóg liggéey liggéey ngir ñaq jariñu waaye liggéey ngir ñi nga xamante ni ñooy ñëw di fa daw di fa wut si euh, seen yitte su ñu ñëwee jënd ñu jaay leen marché moom ci économie lieu change commerciaux la te vecteur de dynamisme économique la looloo tax a jóg marché loolu nag mënta sotti mukk te lépp ci wàllu sécurité matewul wàllu sécurité boobu moom euh, président leeral na dina ci taxaw baax li nga xamante ni tamit moom laa ciy dolli mooy euh, xam na ni mbir mi métti na te ku daan xëy di liggéey di ci ut dépense di yóbbu sa kër boo dee toog nga ba mënatoo ko loolu dina indi tuuti sooxe ci sa doxalinu kër mu am ndàmp boo xamante ni nag tàmbali la rek waaye dama koy wax maire bi ak délégué bi mu jox leen ko masawu leen ci kooku daf leen ci massawu nga xamante ni di ngeen ci xañ na mën a dépense ay fan diggante fii rek ñuy xool nan lañ koy lijjantee am na benn lim boo xamante ni président waxoon nañu jàppale leen ko waaw léegi nag loolu maire bi ak délégué bi ak ñi nga xamante ni yéen yéen a ko kii euh, cinquante million la ngeen xool euh, pour ay dépenses pour ay dépenses lu leen jàppale ndaxte ku mënta dem koo xamante ni mënatoo dem sa bërëbu liggéeyukaay dina xaw a metti ngir loo jël yóbbu sa kër waaw loolu loolu loolu daal moo doon euh, kaddu yi di leen massawu di leen xamal ni. waaw di leen masawu di leen masawu baax xam xam ni président mi ngi seen wet gouvernement bi ngi seen wet e képp ku dégg li leen dal am na lu ko naqari ci Sénégal waaye nag li ma ko waxee woon ci njëlbeen gi rek mun Mountakha leeral ñu ko jàmm moom saa yu dogal dikkee ci moom li ko war mooy mu ni alhamdulilah waa ginnaaw bi mu waxee alhamdulilah nag doomu aadama li ci tegu mooy day jublu ci jéem a joyanti lépp loo xamante ni euh, mën nañ koo joyanti te loolu it ñu ngi ci compter ci yéen ndax sapeur yi ak protection civile bi ñu ñëwee wax nañ ni am na yu bëri yoo xamante ni war nañ ko xoolaat ci marché bi yoon yi ñuy jaar ngir fay am na problème bouche d'incendie am na problème fi ñuy jëlee ndox waaye loolu yëpp buñ ci noppee incha allah jéyee yàlla bu mu amati waaye bis bu amee dootuñu am gàllankoor ak jafe-jafe ngir mën a fay lakk gu gaaw loolu daal moo doon kàddu yi di leen massawuwaat di leen xamal ni mbir mi daal suñu mbiru Sénégal yëpp la waaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu